su fekkoon da ngay dund ba dee doo am benn xewal naqar ci kaw naqar waa boo dee dugg aljana jar na ko waa yàllaay ku baax moo tax mu may ñi xewal yi may nii ba pare fay ñu aljana wallaay xam nga ne liggéeyuñ lu ko jar aljana nim taaroo nim neexee ak nim sellee nim kawee ma ne bu fekkoon ne sa dund yëpp day métti waaw nam di naqar ci kaw naqar amul benn bànneex su boobaa nga war koo muñ war ak sant yàlla ndax la la yàlla joxit loolu jar na ko sallallahu alayhi nañu nag ay hadis yu bari yoo xam ne mën nañ cee sukkandiku ba xam ne àdduna du kër sant yàlla gi wa njëkk ci yow jullit bi mooy lan mooy xewali lislaam bala yàlla defee jullit mooy xam nga liggéey ndax ko am liggéey ko amul liggéey danañ bokk lislaam daal mooy ku ku ci yàlla dugal mooy yow nangu nañ laa liggéey loo ñi am liggéey ci société yu mag yi danañ daj coono bu nekk waaye dañ koy muñ ndax lan ndax résultat ba ñuy xaar yow nga am liggéey bi lislaam am ñu war laa fay loo xam ne fay tollu ni moom ah sa coono boobu kay da nga war a bég da nga cee war a kontaan waaye waroo mer déglu li ma bu baax a baax a baax bala yàlla tànnee liggéey loola si nga am liggéey bokkoo ñu amul liggéey bu dee ñu amul liggéey sax ñi ngay sonn di am naqar di am problème te safaraa leen ni xaar ah yow mi am liggéey kay nga war a muñ yàlla ne in takunu taalamuuna fa innahum yaalamuuna kama taalamuuna yéen bu ngeen di méttalu yéen ñu baax ñi ñu bon yéen ñu ngi am ay méttit kom yéen te yéen la ngeen yaakaar ëllëg ñoom yaakaaruñ ko kon ngeen war a muñ ku am métier ku amul métier duñ benn ku am métier sonn waaye coono boobu def ciy feer ndax lii liggéeyam la ndax ci kontaan ndax liggéeyam la résultat ba ko cee xaari dana tax lum ci mën a daj ci coono muñ yaa ngi dégg kon lislaam mooy xewal gi gën a mag mooy am nga liggéey yow société bi jël na la pour nga liggéey góorgóorlu nag ba am fay yi gën a kawe sa fay lu muy doon aljana dara neexew ni moom kon nag loo mën a daj ci coono nga war koo muñ arab bi nee fa man fa man yaxrafil matluba yaqir ma basal ku xam la muy sàkku lu mu génne ci coono man koo muñ moo tax na leen yàlla jaral bu leen dara jaral naafiq bu leen dara jaral woon gannaaw yàlla bu leen dara jaral moo yàlla nitu yàlla yi bu ngeen gisee ñu naroon a muñ ñu mën a muñ lu mën a xew ñaar yii la ñoom duñ dara jëndee àllaaxira dara naturellement dañoo xam seen bopp muus di wut la ñu war a wut nit waa àddina yi dof réere seen bopp di wut lu ko jarut ba mu xañ leen lu ko ëpp ñooñu àdduna def leen nax yéen nag ndax da ngeen topp kuñ nax jël leen ñaar yi ma leen wax da nga ci àdduna kuy liggéey ñaq tooy xep sonn daj lu ne waaye dafay bëgg ci liggéeyam moo ko gënal ñàkk liggéey ndax lan ndax résultat bu muy xaar te loolu dara la ci xéwali àdduna bu fekkee coono bi am na bànneex bu la ko nar a fàttaloo jar na ko dégg na yonent bi lu mu leen jàngal nag dana leen ko jàngal ci biir hadis bi nee na ki gën a sonn ci àdduna gën a bëri fitna ci àdduna bis buñ ko dugalee aljana benn benn dugalin maanaam bis buñ ko ci nuuree na ko taaj mu toog aljana buñ ne ko mos ngaa coono mos ngaa sonn mu ne déedéet ndax fàtte na ko yéen ma dégg léegi nag loo xam ci nga nar faa dëkk nag aljana bis boo fa wàccee ci climat ba yoon ba nga fay njëkk wàcc wàcc bi ñu ngi fay njëkk a am dalay fàttaloo mboolem coono boo mos a daj ki gën a sonn ci àdduna laa wax de ki gën a bëri naqar ci àdduna ku bën a gën a bëri na ci àdduna bis buñ ko dugalee aljana nuur ko fa benn nuurin ne ko mos ngaa sonn mu ne déedéet du dafay wax lu amul da koo fàtte léegi nag yow saa yoo sonnee fàttalikul keroog nuurin boobu xamal ne am na lu lay xaar loo xam daal la fàttaloo sa coono mu jaral la ko. boo sonnee ci mbaax na la fàttali keroog ba ngay dugg aljana bu keroogee nga fàttali sa coono yëpp kontaanal ci loolu booy julli ba sonn waxal sa bakkan mi ne ko yaa nafsu yaa nafsu alxamsata alxamsata keroog bañ may dugal aljana ma defa nuur benn nuurin boobu rek jar na coono bi waxuma laa dëkk gu ma fay dëkk ndax sa bakkan bi bañ laa ndax naan la da ngaa yaa ngi sonn ci li ko gën a ñàkk fayda looy xar looy looy poñeti àddina kon yow doo sonn ngir yàlla nga xam ne bis boo amee bànneex ba mu fàttali loola coono ba jar ko kon est-ce lii moo tax wali yàlla yi mën a muñ seen coono yi dañuy sonn di ree ndax lan ndax la xaar daf ñoom ñi ñuy jàppee seen bopp comme euh, liggéeykat bu sonn rek dañuy kontaan seen coono boobu xamul lu leen mën a taxa jublu àddina wan gannaaw yàlla luñ sonn sonn sonn sonn dañuy jàpp ne jar na ko kon su ngeen fàttali su ngeen sonnee ba sonn ci mbaax ma ne kontaan leen seen bopp feer leen seen bopp bëgg leen seen bopp fàttaliku leen nuuriñ ba ngeen nuuru ci aljana dana leen fàttaloo mboolem coono ba ngeen mës a dund ñaareel ba boo gisee ñoom bànneex du leen tax mooy yàlla ndax dañoo xam ne lam leen xaj moo ëpp fuuf yonent jàngale ko sallallahu alayhi nee na xewli àdduna xewli àllaaxira xam nga nu mel mu mel ni nga jël sa baaraam dugal ko ci géej génne sa baaraam la sa baaraam bi di takk mooy xewli àdduna la des ci géej gi mooy xewli àllaaxira loolu nu mu ko ëppee waaye léegi dama ne su ngeen gisoon ñaar kii gis géej ga géej a xéwal di ko wuuti ba ñàkk lay takk ca baaraam ba lépp amul ca dara amul ca dara waaye nag mu ngi def loo xam ne dana ko may xéwal géej ak ki nga xam ne moo topp xéwal gi nekk ci baaraam ba ba mu xañ ko xéwal géej géej ga te xéwal gi nekk ci baaraam ga day jeex ku ci gën a am xel kii wuti géej ga ndax loolu day sax te moo gën a bëri gën a neex léegi nag lu tuuti la te day jeex moo tax ki bàyyi àdduna lépp suufe yankewul ngeen naan aka a dof moo gën a muus fuuf ki topp àdduna ba mu xam ki àllaaxira kooku dafa naxu parce que jël lu tuuti ba bàyyi ba ñàkk lu ëpp ëpp solo loolu ku dof rek koy def moo tax alquran di wax ne wa man ayaatu wa man ayaatu dunia illa mataaul xurur àdduna daf leen a nax rek ndax xewli àdduna yëpp boo ko dajalee day mel ni lu takk sa baaraam bi boo dugalee sa loxo ci géej la takk sa baaraam bi mooy xewli àdduna tuuti na moom la alquran waxul mataa dunya qalilun waxal ne xewli àdduna dafa tuuti wa ma inda allahi xeyrun wa abqa àllaaxira gën ni géej gënee la takk ca baaraam te moo gën a yaatu moo tax ñu muus amul benn bànneex bu leen taxa def lu xaraam ndax dañu xam ne li ñu ñàkk nii bànneex bi ñu ñàkk bànneex ba ñuy wutee ko ëpp yéen a dégg loolu war a gis wali yàlla mën a bàyyi yu neex yi ndax lan ndax duñ topp lu tuuti li ba mu xañ leen lu ëpp la ñaata am ngeen dund ci àdduna fii mën naa am soo ko fi dund soixante ans soixante dix ans quatre vingt balaa téeméeri at nga dee te dund bi lu mu neex neex neex tey nga am naqar suba nga am bànneex rek la mhm. kenn muccut ci nga di ko jëndee nag xéwale àllaaxira goo xam ni kenn xamuñ ko lii moo tax gars yi àddina xeebu ci ñoom jaralu leen daara duñ wax ndax àddina ba mu yàqaleen àllaaxira duñ jëf ndax àddina ba mu yàqaleen àllaaxira buñ ci sonnee da ngay xalaat ne dana am dana am lu leen ko fàttaloo buñ leen dugalee ci àljana ñu fàtt coonam buñ ko ñàkkee ñi ngi xam ne lañ ñàkk lam leen di mayee ko ëpp fuuf moo tax bu ngeen mënee góor ba wutam àddina du dox seen digganteek seen borom def leen. yéen def ci yàlla tax. àddina li ngeen ci war a am rek ngeen am ngeen sonal seen bopp ngeen ñàkk sonal seen bopp li ngeen ci war a am rek ngeen am dee leen def te yàlla tax su fekkente ne wutum àddina dem na ba nan leen sonal hmm. fexe leen bu mu leen bàyyiloo farata bu mu leen def loolu xaram ndax bu leen bàyyiloo farata xañ na leen lu ëpp xañ na leen géej ak xéwal ci loo xam ne nii mi baa mi loo xam ne nii tuuti la daq ci baaraam lay tolloo lu xaraam ah ba xañ na leen xewal gu rëy waaye coono ba ngeen doon dawit dana leen teg coono bu gëpp gis ngeen ne yonentu nee na ki gën a am bànneex ci àdduna buñ ko dugalee safara benn dugalin ko laajee ndax mos nga am xewal mu ne safara safara première minute yi nga fay dugg buñ la nga am xewal ne déedéet ki gën a am bànneex ci àdduna da ngeen dégg da leen fàttaliku ñaar yi su ngeen demee ba àdduna nar leen këf baat na nar leen yóbbaale ngeen nar a topp ndoor doomi àddina yi te doomi àddina yi ñoo ëpp léegi moo tax bu leen xool ci kenn xool leen seen bopp rek ak li ngeen jàng bu leen roy ci kenn roy leen seen bopp ak li ngeen jàng su ngeen demee ba gis doomi àddina yi xiit ci àddina lool ba ngeen nar leen a topp ndoor xelaat leen ne xelaat leen ne lii ngeen di ñàkk nii dégg nga coono bi ngeen di dund ba tax ngeen bëgg dugg ci lu noonu bis bu ñu leen dugalee aljana benn minute ngeen fàtte ko kon fay nga jar na ko ngeen fàttaliku li ngeen di daj ci coono ci mbiri àddina yi ngir am ci dara ngeen war a mën a daj daj coono ngir àllaaxira fàttaliku leen ne àddina lépp boo ko ñàkkoon amoo ci benn bànneex am ci aljana sax jar na ko taalaa ku yàlla da nga am lu la neex ci àddina moo tax ñun defaluñu yàlla dara su ko defee yooyu ngeen di xalaat ndax ngeen mën a góorgóorlu ndax àddina bu leen këf bis buy këf xol yi seen ngeen ñaari mu leen wax bu méttee fàttaliku leen fay ga dana leen ko fàttaliwoo bu naree neex te nar leen a yàqal àllaaxira fàttaliku leen ne nii lu takk ci loxo la mel la des ci xewli àllaaxira mooy géej kon lu ndaw li bu mu leen yàqal lu rëy loolu mooy naxe dëgg waxaal wana taala yàlla mu ko am yàllaa ngay lim na yu neex yi maanaam lii réalité ak lii dëgg mooy àdduna dafa neex ci bakkan maanaam ku fi nekk fii di jéem a baax baaxlu banaa àdduna neexu dafa neex dafa rafet nit ñi dañ koo bëgg ñu ëpp sax moom la ñuy wut waaye dafay dafay naxi daf lay xañ bànneex bu ko gën a rafet dàq ko fuuf neex na neex na de àdduna neex na de waaye ak bon parce que lam lay xañ moo ko ëpp fuuf yàlla ne zuyina taaral nañ li naas ñeel nit ñi kon kon dafa rafet duy ne taaral nañ naa si ñeel nit ñi yéen a lu yalla ne mako rafetal kay rafet na lu yalla taral nit ñi hubbu shahawaat bëgg ay banex mi ne nisaa ci jigen wa ma jël bakani def ci bëgg jigen ju jigen bëgg ay jigen loolu mako def ci nit ñi yalla neena ma jël bakani def ci bëgg ay jigéen yàllaa ko def de waaye lan la taari àdduna ci taari àdduna yi la bokk da nangu réalité bi ba pare na nga mën koo moytu ndax bañ mu yàqal la àllaaxira moo tax ku moytuwul rek topp jigéen ñi moo tax hadis bi moytuloo ñu jigéen fa taqun nisaa moytu leen fitnaay jigéen ndax ñëpp ko bëgg kat amul boo demee ba bëggoo jigéen nga moytu jàmbar doo jàmbar ndax bëggoo ko dégg nga waaye bu lu ko yàlla bëgglooyee ba pare nga bañ koo def ndax ragal yàlla koo koy jàmbaar kooko bato yàlla tax maa def nit ñi bëgg jigéen yàlla ko wax de wal baniin ak ay doom man maa jël doom saxal ko ci xolu nit ñi ku nekk bëgg nga am doom mu jaral la lu ne ci sama doom la yàlla ne maa ko def dafa dafa neex ci xol ah loolu mooy réalité dafa neex ci xol waaye lan la taari àdduna rek doom yooyu taari àdduna la luy jeex la bëgg koo am bu la taxee ñaawal bëgg koo am bu la taxee def loo waru def mu yàqal la xewali àllaaxira yàlla dafa leen wax yi gën a am solo yoo xam bu ngeen ko moytoo rek àdduna mën nañ leen a bañ mooy benn bànneexu jigéen moytu leen ko ku ko moytu du njaalo jabaram du def loolu mu warul def day teg tànkam siraatal mustaqim rek waaye ñëpp ko bëgg wal baniin ak ay doom bànneexi doom ñëpp ko bëgg ku nekk bëgg na ko waaye mun nga taxam moo yàlla de wal qanaatiir xam nga am ñoo xam ne seen doom ñoo leen te jaamu jaal ndax lu ñu jox seen doom rek wala boog lu seen doom yi def neex na neex na leen am na ñu mel noonu ñoo xam ne seen buñ seen njaboot bu ñu def lu bon sax seen yoon nekku si kenn du leen laal moom la yàlla wax ne seen alal yi ak seen doom fitna la mooy bu ñu leen tee jaamu yàlla wuti loo jox sa njaboot mu la tee jaamu yàlla waaye bëgg doom bu mu tee nga yar ko bu mu tee nga doxal dëgg même bu jotee doomi jaamu tamoo tooñ ne ko yaatu tooñ am na ñu mënut loolu di parloo rek ba doom yi dugal leen safara wal qanaatiir yi ak ay alal yu bëri bu doon tey nga ne ay milliards al muqantarati yañ dajale yàlla nee na maa bëgg loolu nit ñi dajale ay compte banque yu fees tépp ku nekk bëgg na ko di alal ju bëri nga xam ne boo amee soxla làmbu faj mu ne maa ko bëgg loo nit ñi kon nekkulu nit ñi bëggul ñëpp ko bëgg moo tax ku ko am sax doomi àddina yëpp bëgg la te doomi àddina yi ñoo gën a bëri léegi waaw demal woote fii benn programme fii léegi dem jël saal bu gën a rëy nga ne danga fay wax yàlla wala wook nga fay wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxal li gën a rafet benn benn nit ngay am waaye léegi andi andil musique bi léegi nga woote mbooloo mi bëri bu naan rasulullah yi sax gars yi commencé ñëw rasulullah yi rek boo neexee dina wax rasulullah yi waxin bu neex rek mbooloo mi fees tëpp te yow boo doon tëjal nit ñi luy rasulullah ak lam leen di jëriñ kenn du ñëw parce que bakkan yi ñoo bëgg àdduna da lay war ne doomu àdduna ñoo fi gën a bëri boo wootee lu jëm ci àddina mbooloo mu bari boo wootee lu jëm ci yàlla ñu néewee ñëw parce que yàlla dama wax ne walakin aksarakum lil xaqi kaarihuun ñu bëri bëgguñ ñu bëri xerwuñ laa yaalamuun xamuñ kon bul topp ñu bëri bul topp sa société ndax société bi doomu àdduna yi dañu fee bëri dajale ay milliards yàlla nee na maa ko bëggloo ñëpp ku ko bëggut waaye àddina la bu fekkee tax na laa def ay sacrifice yàqal na la sa àllaaxira bu bu fekkee tee na laa julli bu baax yàqal na la sa àllaaxira bu fekkee yàq na sa xol ba nga bakk ñaan dugg ci yow yàqal na la àllaaxira maanaam wutam alali àdduna baax na de wax wax ma leen bu leen wut de mosuma leen wax loolu waaye ma ne bu mu dox seen diggante ak seen borom lu neex la it ku ko am nit ñi tàccu la waaye tàccu googu nit ñi di la tàccu lu tuuti la boo ko comparé xewali àllaaxira فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل كولي أدنى بوكم بارك الله خير القرآن لو توتي يوم تمنى لكم مو ميل رك بودو غلي سبارام جينكو لاي توي سبارام لولاي أدنى لا تي اسمو الله ديتي جارنا بو والقناطير على الجبال المنقنطرة يندجل من الذهب تي ورس والفضة خالص لولاي ماني ماكو بغلو نيني bu leen fi nekk naan noo man yooyu yooyu neexut neex waaw da nga gundaa moom ci àdduna mais lu mu la wal xëy ak ay fas al musawama yu rafetal ya fas yu taaru yi bu doon tey nga ne oto yi boobu fas amoon yàlla nee na maa taaral war waay ku nekk bëgg ngaa gaare sa buntu kër oto bu rafet boo ñëwee rek yéeg rek raay baar bi rek muy daw lamp takk nga nga nga riit ruur rek doxi sa soxla heure bu la neex ngay neex ñëw neex na ci xolle ay bu la yàqalee àllaaxira nga perte yàlla ne maa ko taaral fas yu rafet yi oto yu rafet yi waruwaay yi maa ko def muy rafet bakkan ya bëgg ko mu sonal ni ñi ndax la ndax nattu leen ndax yéen muus ngeen ak muusu leen ndax àllaaxira jaral na leen loolu di leen yàqal àllaaxira wala jaralu leen kum neex na wutul àdduna nga bàyyi àllaaxira rafet na neex na du la am naqar yi comme ñëpp waaye daal moom danga ca ñam dara daal moom ca bànneex waaye boo demee àllaaxira perte de waaw yàlla wax nee na moo ko taaral wala ak juru kër maa rafetal ngeen am ay nag yu bëri ak ay gëlëm am ay xar yu bëri saa yu leen neexee jaay saa yu leen neexee jàpp rey nga xam ne maa ngi ko leen dara ci jur wala xar si ak mbay ngeen mbay tool yi tool yi gerte yaa ngi nii toolu ñebbe yaa ngi nii toolu mboq yaa ngi nii toolu xaal yaa ngi nii banaana yaa ngi nii pomme yaa ngi nii hmm? dégg nga yaa ngi nii ngeen bay lu ne àll bi lool nga kontaan gis ne tool yi yëpp yaa ko moom sa xol day sedd ay bu la yàqalee àllaaxira moo tax boo liggéey ba waxtu julli jot yow mi nekk ci tool yi daggal li ngay def nga dem julli maanaam na ngeen kirti kirti ci àdduna liggéey ndax jaamu yàlla la waaye nag mun leen am wërsëg wu leen yàlla joxut te wuutim àdduna boobu mu dox seen diggante àllaaxira su boobaa ngeen bokk ci dof yi yàlla ne zaalika loolu mataaul xayaat dunya yóbbu na dund àdduna bii rek la gis jigéen ñu rafet yooyu taaru yooyu ngeen topp yow de àdduna la doom yi ngeen di àdduna la milliards yi ngeen di ndamoo yow de àdduna la moo xam wurus la am xaalis la waruwaay yu rafet yi jur yi tool yu bëri yi yooyu yëpp mbiri àdduna la maanaam kenn gën a wut ci kenn wërsëg yàlla rek yàllaa ko jox ku ko neex joxu ko ku am xel joxu ko ku gàtt xel moo ko jox ku ko neex joxu ko ku baax joxu ko ku bon mën naa may ku ne moom borom bi subhanahu wa taala waaye taxul nga gën kenn mataawul xayaat dunia rek la yóbbul dund àdduna la ku ne koy am inna laa yuti dunia liman yuhibu wa liman laa yuhibu walaa yuti l imaana illa liman yuhibu ngeen jàngoonam yàlla mën naa jox àdduna ku mu bëgg ak ku mu bëggul waaye gëm yàlla yàlla du ko jox lu may ku mu bëgg kon am àdduna taxut kenn gën kenn parce que yàlla àdduna la ko tollu fenn ci ñun la ko rafetal waaye rafetul ci yàlla waaw ne gunóor yi gunóor lekk gunóor rafet na ci yéen neex na waaye neex na ci gunóor gi cox yi fas yi lekk dooma neex na ci doomu aadama ah neex na ci jur gi de moom moo leen joxe ripaas yi xar yi ripaas dañuy kontaan lool sax waaye xam nga loolu lekk jur la de kon lu rafet ci nit ñi neex ci nit ñi ne rafetul ci yàlla yàlla àdduna du daara ci moom nattewul ci dara jàppul ci kenn bàyyiwul ci kenn tollu ko fenn bal da ko xeeb sax encore da koo rëbb léegi nag góor-góor leen ba bokk ci doomi àllaaxira yi maanaam yëngatu nu leen yëngatu jublu leen ci yaamu yàlla bu leen àdduna nax seen wutum àdduna mun leen ko ñàkk def waaye rafetal leen ko te xam ne lu leen yàlla mayit mun leen ko am waaye bu leen àddina këf mukk ba ngeen koy wuti ba talatu leen seen borom dee leen xereñe nag jaamu yàlla ki xam nga hadis yi ak aay yi boo koy jàng nga ne bés nga ne man damay jël àddina sànni ko fële di jublu jublu yàlla da ngay julli bés kiraam nga sonn delluwaat sa moon nga rek dee leen xereñe li ngeen def ndax ngeen mën see sax lu gënal yàlla mooy lu sax mooy jëlal dog boo xam ne nii lu baax la ak jëf joo xam ne nii lu baax la nga sax ca te sellal sa yéene ne yàlla rek tax ma def bi soo demee ba gis ne mën nga koo yokk nga yokk ko waaye jëlal loo attan nag ndax boo ko bàyyi sax ci di ko def te yàlla tax del def lu baax te di ko nëbb su action taxawee action bu mu mën a doon xoolal ndax yàlla gërëm na ko mu gërëmut ko ci xool intérêt àddina de xoolal yàlla gërëm na ko mu gërëmut ko rek nga def bu fekkee àttan nga ko boo ko attanu nag ah nga xool waaye daal luy may àllaaxira julli war na ko mën a àttan ngeen bokk ci nitu yàlla yi loolu mooy nitu yàlla yi mooy ñoo xam ne lu xew lu baax lañ cee def buñ paree par nañ xaaruñ leneen lu baax loolu buñ ci ñàkkee dara xam nañ ne lam leen mayee ko ëpp lu baax loolu buñ ci amee coono xam nañ ne bu ñu dugal dina fàtte ko jeex na du leen tee nag liggéey du leen tee wut àdduna du leen tee def li ngeen war a def waaye nag du yàq seen diggante seen borom est-ce que dégg lu ma leen wax baax kon lii lépp ma taaw xayaatu dunya wallaahu yàlla indoo nekk na fi moom xusnul maabi delluwaay bi gën a rafet delluwaay bu rafet ba nag moom ci yàlla nekk mooy àllaaxira fa la nekk fa la jàmm nekk fa la nekk fii dund nekku fii kenn mënu fee dund amal lu la neex doo dund parce que foo nga am lu la fatt ak lu la lu la lu sa dund waaye dund bu rafet bu neex bi bu teey bi kooku àllaaxira la am yàlla ñu ko yàlla may ñaan gi mooy yàlla yàlla feesal suñu loxo ak àddina xas naa ko bi mu bëgg dee waaye yàlla nañ ko am nañ leen àddina bu bëgg a dee ba pare yàlla nañ ko am yàlla na suñu loxo ndax ñu mën koo dimbali koo si lu nañ ko bëgg a dee waaye yàlla ko am buñ ko dañuy muñ waaye yàlla nañ ko am mais xol bi yàlla si yàlla rek nekk. xol bi yàlla ci yàlla nekk yàlla buñ yëngatu te yàlla taxut yàlla buñ def te yàlla taxut hada in uridu lislam wastatatu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh